mbokku téléspectateurs yeen ni safo euh, télé bi di Galaxy TV Sénégal né lañ leen ñun dañ leen di toppal lepp lo xamanteni ni dafa am rapport ak magal gi ba taxna comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi ni taxaw si ñi di jaay kruusi ak euh, téré yek yépp dañuy euh, daal di rek ñew dugg ci biir waxtaan ak nga xamanteni ni ñoy jaay yile accessoire sëñ bi noo la. waaw ma ngi sant bu baax alhamdullilah tuddu man Serigne gëdem bakki la tuddu waaw ah. Serigne ñu gis la nga ngay jaay ay kaamil ak eh, ay kurus ak eh, yenn kawas yi ñuy sol ak yooyu noonu lan nga ñu ci mën a wax ci li ngay jaay ak eh, màggal gi ñu jëm. waaw ñun moom wax dëgg yàlla métier mi mooy sunu métier même bu nekkul màggal yi si la ñu nekk di ci yëngu ndax wax dëgg yàlla day métier moo xam ne day fayuk àdduna di fayuk àllaaxira moo tax ñu bëggal ko suñ bopp toujours ñu siy nekk su màggal gi jotee aussi tamit dañ ciy gën a sawar. ngir dimbale ci suñ bopp dimbale ci suñ bokki taalibe yi rek ngir ku nekk rek ak yoon wi nga yoon wi nga mën a jaar pour mën a àgg ci sëriñ bi wala àgg ci yàlla rek waaw. Euh, affaire yi danga koy jaay avant bu dul màggal sax da koy jaay ñu bëggoon xam ndax euh, ba bu ñu nekkee ci màggal gi ak bu ñu nekkul ci màggal ban période la bagage yi di gën a jaar. waa xasida yi moom wax dëgg yàlla dañ koy jaay bu nekkul màggal ak ci màggal yi yëpp rek mais su nekkul màggal day dox waaye wax dëgg yàlla moom. bu màggali ndaw yi amee rawatina màggalu Tuubaa gu mag yi ñu nekk nii dañ ciy yëg suñu bopp bu baax a baax a baax mën naa ne sax mooy mooy suñu période waaw wax dëgg yàlla ci la ñu a yëgee suñu bopp. kawas yeeg euh, yëpp. waaw yooyu bu ci nekk daanaka ci màggal gi lañ ciy gën a yëgee suñu bopp bu baax a baax waaye bu nekkoon màggal moom danañ koy jaay mais du gaawee noonu waaw waaye daanaka màggal moom mën naa ne liñ ciy jaay bu dul màggal moom wax dëgg yàlla mënuñu ko ci. ndax nit ñi moom la ñu gën a soxlaa kawas yi instant bii nii prix bi fan la waa kawasi moom bu dee bii moom 1000 francs lañ koy jaayee mën naa ne sax client yi koy jënd sax ñoo nu ko gën a xam waaw. waa bu dee yooyu moom asma wi moom yëmut fenn rek sans dépense yi client bi rek moom kenn ku nekk dañu bëgg soo ñëwee ak li nga yor sa poche rek daanaka lenn lu ci lenn lu rek ak lu ci mën a doon rek boo fayee prime rek daanaka dan la koy bàyyee waaw. ñoom daal amuñu prix fixe par rapport ak waa xasida day nag daanaka moog yii yëpp ñoo yam benn bu ci nekk rek daanaka bu ci bénéfice bu ndaw tegee rek. dañ koy joxe ndax dañu bëgg kenn ku nekk nga man see jarñu daal waaw looloo tax. ci màggal gi yan yan problème ngeen di faral di jànkonteel. ah fii nag problème waaw à part nag xanaa yenn comme ngay kii ak si yenn place yi nii xam nga détail xëccoo place ay buuxante yooyu mais comme bu dee mbirum njaay meeg yooyu noonu moom wax dëgg yàlla moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ci sant sëriñ ndax mën nañ daanaka tawféex rek lañ ciy dajeel daal waaw tawféex rek waaw. fii mooy seen place fixe wa wax deug yalla moom fii moy sama place danaka bu magal kiwe lañu gëna xawa and suñu jégué talibé rek tout nii waaye wax deug yalla fii moy place fixe bi ku ñëw rek fi nga doon fekk. lan nga mëna wax ñi nga xamanteni ni nii ñoo ñëwagul Touba par rapport ak charte yi ñu tek waaw ñun mom li ñu wax rek moy danaka parfois nga dégg ci ño xamné dañuy nekk naan Touba ki dafa metti neeg ni ay man duma def li ainsi de suite ainsi de suite waye ñun mom en tant que mourid moom li ñuy diggal ñëpp comme ñun mom dañoo tënku ci ben cadre moy cadre serigne bi comme serigne bi loolu la bëgg rek daanaka jurul ñuy xool naan sëriñ bi baay faali la ko jox wala nangam ak nangam nañ def li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg te yow mi nga xam ne yaay nit ki soo ko defee nga noppal sa bopp rek nga jéem a def loolu man loolu laay digal sama bopp di ko digal mbokki taalibe yi ne ci dëkk bi ak ak ñi fi nekk ñi nga xam ne ñi ngi si yoon bii ñëw ak ñi ñëwul ñëpp rek waaw jërëjëf merci beaucoup kon waaw jërëjëf yow tamit ñu lay sant bu baax di la gërëm di ñaanal seen bi nga xam ne mooy Galaxy TV yàlla yokk leen ci barke màggal gi kontaan nañ loolu jërëjëf Bismillah, assalamualaikum papa. waaw ah, maaleykum salam wa rahmatulah. nuyu nañ la bu baax noo tudd. man Babacar Seck lañ may wooye ñuy wax mbay Buniyaan suñ mbay papa ñu gis la ngay jaay ay kurus ay ak ay euh, takay yi nga xamante ni yépp dañ koy soxla bu magal ak euh, après magal. ñu bëgg xam rek ak période magal bi ñu nekk prix bi fa la tollu ak euh, bagage bu nekk la lay jëriñ. waaw bagage yi moom li ci jiitu mooy ñun dañuy wecci alxuraan lan lay jariñ nag moom boo boo ne damay wecci alxuraan daanaka soxlaatul wax lan lay jëriñ ndax alxuraan moom ku ne xam na li muy jëriñ xasaayit kasaalika ndax itam ñoo bokk lu ko bëgg nu ko taalibe yi bëggee ñu jàng alxuraan jàng xasida ni mu tungoome bis bi rek ak ni ko sëñ bi diglee santaane ko ah, loolu moo tax alxuraan ak xasaayit ñun la ñuy wecci taalibe yi ngir ñu man cee doxal ndigal li sëñ bi santaane waaw. Euh, période su màggal bi ñu nekk mbaa bagage yi mu ngi dox bu baax a baax a baax. waaw yi moom faaw mu dox bu baax a baax ndax sëriñ bi bu wootee ñëpp wuy si ko faaw lépp dox ndax fu ñëpp dem lépp ñëw fa comme ñëpp fii lañ jëm si moom lépp la ñuy àndal bu ñuy ñëw bu ko defee nu tànn lan sëñ bëgg te nu bëgg ko nu tànn ko. la ca des nag sax amuñ soxla waye yaakaar naa donge yi ren duñu indi dara lu li señ bi bëgg ndax señ bi limu mu yomb na mu wuy ci ko moy sol ciol gu yiw bo ñëwé di wax wax bu yiw di ko jëf ba nopi di jang alquran di jang khasaid ba nopi yor sa kurus di tudd yàlla defe na loolu mooy njëlbeenu li nga xamni mom la señ bi woote te nun ci loolu lan fas yene sax nun nak da lo demul ndar demul ndakaaru ñun tuubaa rek lañ féete bu jant fenkee nu ñëw Touba toog fii luñ fi sëñ bi jox rek nu doy looloon demunu ci géej gi amunu soxla ci dem ci dex gi soxla wunoo tukki ndax li nu bëgg lépp ah, sëñ baa ngi nu koy jox waaw ñu gis la nga tiim benn siwo ah, ñu bëggoon a xam siwo bi ah, li ci nekk lan la ak lan lay jëriñ li xew ci bayfaal gi lii moom ndigal ndigalul bayfaal yee ku mu neex sax ni ko nii boo defee noonu boobu bu la neexee teg si beneen ni ko nii bu ko defee lii moom kenn ku ne xam na ni doxiinu jamono la ànd lii nag boo ko yoree boo demee ba toog sa barab ginnaaw boo liggéeyale sëñ ba noppi ba xéewlu ba noppi dangay yor sa kurus tey tudd yàlla ndax ràngoo kurus doo nga taxul ñu ñuy wut kurus waaye kii 33 la 33 nag mooy baax baaqiyaat saalihaat boo jullee ba noppi war a subhaanallah 33 da danga koy wër benn yoon rek kurus gi mat 33 yooyu mat nga wax walhamdulilahi wër ko benn yoon kurus gi mat nga wax wallahu akbar wër ko benn yoon kurus gi mat kooku boo boo ko boo ko defee 33 moo nga yor kurusu téeméeri per ñooyam dafa kursi ñu bëri dañuy yaakaar ni ay accessoire la rek pour lonkoo ko comme sama mbokku jigéen ñi ñoom lu ñu gis rek dañuy yaakaar ni pour décoration la mais li ñu si wax léegi nii nii xam naa ne ñu bëri xamuñu ko si woon kursi nga yor nii instant bi prix bi fan la toll. kurus bi fi mu ne nii maa ngi koy jaayee li commencé 6000 7000 ba 10000 maanaam lu ma ci am rek doyloo ko. ngir baaxee ci taalibe yi waaye nag kurus yi bu ñu defee dañ koy takk rek ràngoo ko di eh, di eh, présenté woo ko ak ak waaxu ci mbedd déedéet kurus saaboo boo séenee nit takk ko di dem daa werd ba tollu ci war a yor dara ci loxo yi mu ràngoo ko ndax sa loxo bu ci dara war a nekk te mënoo ko boolee kurus nga ràngoo ko yor leneen ci sa loxo saa boo demee ba bay xéewloo tam boo ko ràngoo boo xéewloo ba noppi da ngay wékkiwaat sa kurus di ci tudd yàlla kurus moom tudd yàlla lañ koy dee ndax masalan boo yoree kurus di tudd sa borom doo nekk ci la sa yoon nekkul doo wax loo bëggul doo wax loo xamul bu nit di wax ak yow fekk nga yor kurus mucc nga ndax da ngay yor sa kurus eh, noppi ca la muy wax ndeem du waxu du lu waxu bu jigéen ñëwoon di tàllal loxo di jox nit ñi di te yow góor waroo jox jigéen loxo bu yore fekkee nga yor kurus du la jox loxo seytaane du and ak ku kurus waaw. Euh, papa yi ñi tak ci baat yi ak li tak ci loxo yi ak yi mel rek ay genre nafa tan ci def euh, photo serigne bi lan moy sen njëriñ. lolu kenn ko ne dafa am lo xamni mom da ngay wone woni li la doon boo gisee koo dafa tak kurus di ci tudd yalla bu sonnee wékkoo ko wala mu tak lu melni asmaou asmaou bi nga xam da koy ci loxo mag ñi daan nañ ko def nag dafa wuute ay defin rek ndax mag ñi naka jekk xam ngeen ni ku masa jur doom balaa ferum soow takkal nga ko asmaaw ci loxoom donte danga ko doon buut buumu fàllay laxas ko ñeenti yoon juróom ba mu wër nga dal ko koy takkal ci loxo ba kere xele bay fer asmaaw tahlil boobu da koy aar bu xele ba feree ñaare danga koy def ci yérey baatam mbaa yére ndiggam asmaaw yooyu la wutal góor ñi ak jigéen ñi di ko takk nii asmaaw kii laaj la asmaaw tahlil moo ci nekk waaw lu am solo la lu am solo la beneen bi buruus bi moom xale yi lañ ci kii boo boo ñëwee màggal si Touba say say xale yi sa xale yi nga yëpp leen lii buñ ko takkee nuru muri ba doonu murit far dund ci ba màgg ci ba far dañ dañ ciy lang ndax maxtuma mi ma wax la tuuti ci maxtuma li ko sabab mooy titre foncier jumaa yi Touba moo sabab maxtu ma xamuloo xamuloo ko woon titre foncier jumaa yi Touba moo tax nit ñi murid di takk maxtu ma lu tax ñeneen ñi duñ ko takk lu tax waaw murid yee ko moom ndax ñoo ci denc seen titre foncier jumaa ji sëñ Moudou Moussa la ñuy roy sëñ Moudou Moussa daa am titre foncier jumaa yi tubaab yi maye ko ba noppi wëlbatiku nangu ko ndax bañ leen ne yéen a ngi may muri yi ñuy tabax kaaba waaye bu ñu ko tabaxee dootuñu dem màkk seen avion yi dañuy perturbé yi ndax fii la ñuy yem di fi aj ma loola amee tubaab yi daal di retiré fexe ba jotaat récupéré waat titre foncier ba delloo ku ñuy wax sëriñ ma surang surang moom lañu yebal mu dem toppi ko bi sëñ Muudu Musaa waa waxee sëñ Fallu ni ko ah eh, titre foncier jumaa yi Tuubaa ba de tubaab yi dañ caa fi pexe léegi nag ginnaaw signé woon nañ ko fa dañuy wut avocat sëñ mu dum sama ko sëñ Fallu mu ne awoo kii waay awoo kii xam nga kaa ku la kii nag ku jege la mu ne ko awoo kii rek mooy borom baraag bi nañ ko woo rek moom mu wuy si ma sorong-sorong dem France di toppiwaat titre foncé boobu fu mu dem rek lu mu lu mu lijjanti mu yomb rek pour ñu jotaat titre foncé bam ci jotta tay ñew nak seigne moudou sa dafa ñaw dafa ñawlu lu lu melni lo xamni sagar la wutal ko ak wéekukaay di ko wéekoo def ci refosé ba ci bir seigne Mahmoud Mbegere mom seigne Touba ma mo gi seigne moudou Musaa li rango li te di aw sagar rek mu xol ko xamni niki amna lumbug, lu mu bëgg lu mu jublu ci limi tak mu dem defar maxtuma bu rafet dal di koy sulli suman ba mu rafet ëmb ko ci kaar boppam dikk jox ko sëñ Muudu Musaa ni ko lii de naa ko liggéeyeen defal la ko àddiyee sëñ Muudu Musaa laqar ci ko mu nuroog li mu takk mu ni ah, lii lu lu mu doon mu ni ko lii de maxtuuma la damaa gis nga takk lu ko nuru ma defal la lii ngir mu mën a wecci lii se daal di koy wan nañ koy ubbee ba ko wanee nii nii lañ koy ko wanee ni ko nii lañ koy ubbee ba ko ubbee nii mom sëñ Moudou Moussa ah. mu gis muy keur go xamni man na def titre foncé ba kayit ba mu dal di lem kayit titre foncé ba da ko dugal dal di koy oubat ni mom sëñ Moudou Moussa dal di koy tak mu jek lol mu dal di dindi martu mom euh, sagar mi mu ñawal jox ko sëñ Mahmoud Mbegere mu yóbbu ko barkeeloo ko mo tax liggeyam ba barkel wa Mbegere luñu liggey mu jar mu jël nak maxtuma bon mu def ci titre foncier bu waré aw fasam wala mu war autom fu mu dem tukki bu démé buñu ko dalalé ci ni bi lal lal bi mu biñu ko dal eh, ca ca kaw eh, balgandu eh, lay wék maxtuma buy fa bu mom lay jëk a takkaat pour bañ ko faté fenn ak bëcëk du taggo maxtuma kon lolu mo sabab maxtuma muri yépp di tak di roy muru mu merci beaucoup papa waxtaan bi am na solo wax nga ñu loo xamante ne nii mosuñu ko xam man laay wax boog mosumaa xam ne euh, li ñuy takk nii foofu la jóge kontaan nañ trop merci beaucoup euh, lan ngay wax ñi nga xamante ne nii ñoo war a ñëw euh, ci màggal gi ak charte yi nga xamante ne nii teg nañ ko. waaw ñun de màggal gi bañ ko dalee waajal mooy bañ bañ jógee ci gudaaw ga rek xam nga màggalu Tuubaa diisu ne ba ñetti fan des si dee si ko waajal. saa boo gungee gan ñi tey jii rek nekkal ci waajal ko déwén loolee nag ci nekk nun ñi ci biir dëkk bi ñii ci biti dëkk bi ci lañ na ndax kenn ku ne boo xëyee yaa ngi ci luy tax big bis bi jag rek boo nekkee ci dëkk bi ak boo nekkul ci dëkk bi nu di ci woor ñëpp tey bëgg ñëpp maase ci farlu ci fonk ndigal li te moytu tere yi ndax dëkk bi loolu la laaj war wormaal ko lool rek comme ni nga nu fekkee nii nga xam ne ñun amuñu soxla ci dem fenn fii rek la ñu nekk di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal njaboot gi di joxe addiye di dundal xele yi di leen jàngal te di leen teete te di leen bijjanti di leen lijjanti ci loolu daal la nekk. merci mooy Touba guy mbind di gis nga borom kàddu gaa ngi nii ci kaw Cheikh Mamadou Lamine ndeysaan kooku moo ganee jamono fii jumaa yi Touba ñi nekk tey bi mu ganee jamono la indaale ngëneel li gaa yu baax yi ànd nag sëñ Touba yëpp Mouhamadou Lamine mii nag moo tëdd fii ci kàdd gi nekk ci buntu barab bi boo lëgee ah insa Allah bi muy bokk ci ñi nga xam ne ni ñooy ubbil taalibe bunt ba ñu tàbbi aljanna Mouhamadou Lamine nag firnde la ci barabam bii ngeen ñëw tey ñëw ci këram gii ñun kër Cheikh Mouhamadou Lamine la nekk ci barab bi nu nekk itam ci biir kërëm la mohamadou Lamine ma nga nele photo ba ngay seen nele mooy mohamadou Lamine xasida gi ngay gis ni mohamadou Lamine moo ko taalif kii mooy mu nawirul bunyaan mu alimul jiwaali wal umyaan inni tawasaltu ila rahman xaaliqina bi suwaril quran بدأت بالفاتحة fatihatil وسورة البقرة suratil وآل إمران وبنيسه أجرنا imran من الأصوات Chorale Masoon bi nga xam ni nag Cheikh Mouhamadou Lamine dañ ko ko jagleel bay Moussa Kane moom la ñu may Chorale Masoon xar baax la feese bañu guun Baye baakolam ci xarnu bi nan tagg Ahmadou moom la ñu may Chorale Masoon xar baax la feese bani guun baa kolam ci xarnu bi kii nag mooy sahaadatul abraar benn téere boo xam ne Mouhamadou Lamine moko talif téré bi moy sahaadatu abrar batay ci talif Cheikh Mamadou Lamine fi bo fi ñewé bo bëggé talif Cheikh Mamadou Lamine xasida goo yëkëti ni Cheikh Mamadou Lamine ñi ni la gi la talif guñu ko adressé ta xamuñu ko ci mom ta mom ab talifam yomb na xam ndax day nuro mbirum Serigne Touba lol ta baaru bi day nuro way serigne waye mom faaw day wax ni a'udhu billahi minash seytaan rajim si la rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xaala seex Mouhamadou Lamine bu ko waxee rek nga xam ni Mouhamad Lamine mooy wax kon moom li mu liggéey lépp firndewu na ni lii ab liggéeyam la yàlla nañ ko yàlla fayal te doo leen ko leer ci barke seex Sidi Maxtaar dañ leen a tënk ci benn kàddu itam tënk leen ci benn baat ñu bokk jaar ci wenn yoon mu wutal leen ay njiit ñuy liggéeyal sëñ baara ba noppi di déglu ndigal di fuglu téere bii la leen tu tudde mooy Sahaadatul Abraar waa daaira fédération Sahaadatul Abraar képp ko aju ci guy mbind rek ci bitim réew ci daaira bii la la sëñ Sidi Moxtaar tënk ngir ñu mën a booloo ndax sëñ Baara moo ñaanal mbooloom yal na leen yàlla def ni xorandoom ñu booloo xorandoom nag li muy jariñ bari na ndax ñooy yëkkateendoo yi tegandoo bu jóg jotee ñooy jógandoo bu fat seen dund jotee ñu fat ko bu tawee ñu weer ko bu seddee ñu delloowaat ko ci biir yoon wi ñuy jaar ñax du fa sax seenu dëkk ñax du fa am moo tax boo duggee guy mbind mu set wecc macha allah. macha allah macha allah. mbokku téléspectateurs yi yéen ñu baaxoo safoo télé bii di Galaxy TV Sénégal euh, ñu ngi leen di jaajëfal tey nag lii lañ leen indiloon ci reportage seet nañ ñi nga xamante ne nii ñooy jaay euh, njël yi téere yi ak euh, yi ñuy takk lépp loo xamante ne nii dañ koy soxlaa si màggal gi suñu papa yi koy jaay dugg nañ fa waxtaan nañ ak ñoom gis ngeen bu baax a baax wax ju rafet ji suñu papa ji wax xamal nañu wax yu bëri yoo xamante ne nii xamuñu ko woon lii fii rek ngeen ko mën a amee ci Galaxy TV téléspectateurs restez connectés ici à Galaxy TV Sénégal fii la lépp di xewee